Euh, anecdote, euh, dernière Corité, euh, je suis venu ici à la maison, sachant qu'il n'était pas là. Son épouse non plus, je lui ai envoyé un message pour lui dire je sais que vous n'êtes pas là, euh, madame non plus, mais puisque je l'ai fait depuis 20 ans, je à la maison euh, pour faire mon ziara. Il a répondu en me disant euh, Ça te ressemble, petit frère, que Dieu t'assiste. Et il me rire. C'est le dernier message que nous avons échangé parce que depuis son départ, Chaque semaine, je lui fais un message. Il prenait le soin également de répondre. Donc, c'est un homme euh, de dimension exceptionnelle auprès de nous avons appris beaucoup de choses. Ce n'est que nous le disons, mais c'est ça la réalité. Euh, je pense que les deux hommes les plus informés de ce pays, c'était lui et, et Fodiboka. Et on ne les a jamais entendus dire des c'est un homme vraiment de dimension exceptionnelle auprès de qui nous avons appris beaucoup de choses, qui a beaucoup contribué à stabiliser ce pays-là très discrètement. j'en sais quelque chose. Il m'appelait assez souvent, ou moi-même je venais le voir, prendre ses conseils. Et il agissait dans la plus grande discrétion pour stabiliser ce pays-là. Euh, je fais une révélation, une fois il m'a appelé, il y a deux ou trois mois avant l'élection présidentielle. Il m'a dit, petit frère, toi ministre d'État, directeur de du président Abdou Diouf. J'ai dit oui. Il me dit, kenn mënu ma wan lu fees sama bët. Mais aujourd'hui, je soutiens le président Macky Parce que pendant 40 ans, j'ai lutté, j'ai contribué à la construction de ce pays-là. Je n'accepterai jamais que le pays tombe entre des mains inexpertes. Mais voilà le sens de mon engagement. Donc c'est un homme toujours engagé, toujours au service de son pays. Et ce que je retiens également, c'est un homme qui n'a jamais joui du pouvoir. Parce que même quand il était ministre d'État, de cabinet du président de la République, il a toujours essuyé des attaques, des critiques venant de, de, de, mais il n'a jamais répondu il s'est toujours consacré à l'essentiel à l'opposition même chose parce qu'il a pris les rênes du parti socialiste dans des conditions difficiles un parti qui après 40 ans d'exercice perd le pouvoir et va dans l'opposition il a réussi à tenir le cap il a réussi à rendre ce parti attractif à faire militer des jeunes qui n'ont jamais fait de politique je prends l'exemple du maire de Plateau Alioune Ndoye qui le disait ce matin C'est quatre ans après la perte du pouvoir par le Parti socialiste qu'il a décidé de militer aux côtés de Ousmane Tanor Dieng. Donc dans des c'est un homme de défi. Donc c'est une grosse perte que nous avons que nous avons subie et la leçon que je retire que je tire de tout ça comme beaucoup de Sénégalais. Hier tous les Sénégalais étaient unis dans l'allégresse, dans la joie parce que nous avons gagné. Aujourd'hui tous les Sénégalais sont unis dans la douleur. Cela veut dire tout simplement que nous devons en tout cas être plus indulgents les uns vis-à-vis -vis des autres. savoir raison garder, dire ce qu'il faut dire et éviter d'attaquer personnellement les gens, éviter de dénigrer les personnes parce que de toute façon, ce pays nous appartient à nous tous. Mhm. Donc, si vous voulez, la disparition de Ousmane Tanor doit être l'occasion pour les Sénégalais, tous les Sénégalais, de s'unir autour de l'essentiel. Voilà ce que je, je, je dem tey man ci man personnellement en tout cas mag la man suma xarit la ñi ko jege ñëpp xam nañ ko suma waa kër xam nañ ko. Mhm. Euh, preuve bi du ma wooyu mukk sama. sama tur petit frère rek la ma doon woowee comme ni nga ko sëq ak ñeneen ñu bëri donc ma di ko fréquenter depuis plus de vingt ans loolu moo waral même Korité bi passé bien que xamoon naa ne nekkul ci kër gi mais dama ñëw bu ci kër gi bind ko message bi yónnee ko mu tontu donc nit ku baax nit ko nga xam ne kenn du ko yóbbu ko moon yi ma dégg nit ni Tanor wax na nit lu bon même boo toogee moom wax ci nit ba pare day reer ni ah loolu de doy na waar ça sa te bu dee secret rek am na ko bu dee xam réew mi xam na ko parce que koo nga xam ne moo jiitu Abdou Diouf présidence de la République parce que li ñu bari di fàtte ci depuis Senghor lui il était à la présidence de la République donc luy xew ci réew mi xam na mais kenn mësu ko dégg mu wax lu dul noonu la mu def ko yàlla dogal démb Sénégal yëpp àndandoo ci mbégte tey Sénégal yëpp àndandoo ci naqar donc jàngat bi mooy nañu àndandoo di defante lu baax di waxante lu baax parce que lii jaasul kenn jombul kenn tey moom la suba kan la xamuñu man la keneen ak keneen donc nañu fexe bay defante lu baax di séq lu baax yàlla dimbali ñu Sénégal jëm kanam moom mi fi jóge aussi ni ko ñaanal yàlla na ko yàlla yàlla xare àjjana merci. oui d'abord je je me présente je suis le député Cheikh Seck député maire et président de la commission de développement et de l'aménagement du territoire membre du bureau politique, membre du comité central du parti et du secrétariat exécutif national. Nous avons perdu aujourd'hui un grand homme, un grand homme dont le Sénégal en avait besoin, l'Afrique en avait besoin, le monde entier en avait besoin. Il est parti à un mauvais moment avec tous les agissements que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. C'est quelqu'un qui est parti la tête haute et la main propre. Et jamais dans toute l'histoire, on ne lui a connu aucun écart de langage. Il était un grand républicain qui, pendant plusieurs décennies, a été un grand commis de l'État du Sénégal. Il a œuvré pour la stabilité de ce pays. Il a accompagné le président Senghor, dont il était un conseiller diplomatique, le président Abdou dont il a occupé toutes les fonctions. et le président Macky Sall dont il gère aujourd'hui une haute institution qui lui confère d'être la troisième personnalité de ce pays, la deuxième même parce que la primature étant supprimée. Donc cela dit, euh, nous, per nous avons perdu un grand homme et nous sommes sûrs qu'il reposera dans le meilleur des paradis. Parce que Ousmane Tanor Dieng était un homme bien, un homme qui sortait donc du lot, un homme qui a travaillé pour la République, qui a travaillé pour la paix, dans la, qui a travaillé pour l'évolution de la démocratie dans ce pays-là. Et au-delà de la République, au-delà du Sénégal, nous aussi du Parti Socialiste, nous avons perdu donc notre responsable qui, avec le départ d'Abdou Diouf, les gens pensaient que le parti allait donc connaître, disparaître, mais qu'il la pu donc redynamiser, relancer, stabiliser. Mais vraiment, euh, nous n'y pouvons rien parce que c'est la volonté divine mais sachez que ça nous va du fond du cœur que cet homme que nous avons perdu nous marquera encore pour temps D'autant plus qu'il qu ne nous a pas encore sevrés. Qu'il ne nous a pas encore sevrés, mais Dieu est grand. La volonté divine étant ce qu'elle est, nous ne pouvons pas dire autrement sinon que de prier pour le repos de son âme. Euh, suñu koy tënk dañuy wax ni bon man député maire la di président de commission à l'Assemblée nationale bokk ci bureau politique secrétariat exécutif Ousmane dien li mu li mu représenté woon ci man lu rëy la man suma xarit la woon suma grand frère la woon suma complice la woon li ci gën a metti nag ci man mooy man wax na ak man je fais partie ci nit ñi nga xam ni barewuñ ñoo xam ni wax na ak ñoom ndax bi mu nekkee fii ci clinique Casa wusu woo na ma 23h toog ak man wax ak man man ak moom ak yàlla rek kon am na lu mu représenté woon pour man euh, ma di ko mettitlu waaye yàlla moom li mu mu bëgg moom lay def inna lillahi lay inna ilayna na donc ci moom la ñu jóge ci moom la ñuy delluwaat yal na ko yàlla xare àjjana waaye dem na ci jamono boo xam ni Sénégal soxla na ko parti bi soxla na ko Afrique soxla na ko monde bi soxla na ko Ousmane Tanor ci dundam yëpp kenn mësu ko dégg mu wax lu bon wala mu def lu bon wala mu am benn écart de langage joué na ci réew mi ci développement am ci démocratie am ci développement parti bi parce que bi Abdou Diouf demee suñu amul woon ku mel ne Ousmane Tanor Dieng ci ñun parti socialiste kon tey kenn waxatu ko yëkkati na parti bi tegaat ko ci yoon ba mu stabilisé wu ba aujourd'hui mu nekkoon chef d'une institution boo xam ni mooy deuxième ou troisième de la république ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjanam di ko mettitlu ak njaboot gi di wax ni daal perte nañu kilifa gu mag perte nañ nit ku am solo nit koo xam ni Sénégal dana ko retenir ba faw ndax li mu def ci réew mi. Euh, loolu noog ñu ngi en contact ak euh, ci ñu ngi ci formalité yi ci kanam tuuti dinañ wax kañ lay mën a yegsi bu soobee yàlla bu ko defee ñëpp danañ ko yëgandoo.